ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi ji di Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen fii ci wasaare làmb di am kontaan ak mbégte comme ni ñu koy defalee saa su ne waaye ci benn ndax dama ciy ànd ak sama xarit sama papa Père Birahim mm-hmm. xam ne Père daal sama père la. Mm-hmm. Père moom jërëjëf maa ngi lay delloo nuyu di wax bismillahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki mbokki internet yëpp maa ngi leen nuyu safoo sawaar wesaare ñëpp nag. Hmm. waaw di leen nuyu di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm. may leen sutura teraanga ak poche yi def dara ni ko Sall Aliou Sall hmm. di waxee. Hmm. Assane Sall maa ngi koy nuyu moom it ak Mbacké ak Alioune Mbaye ñoom ñëpp. waaw directeur religieux boobu nga xam ne ñoo nekk si FM maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. comme noonu la koy waxee kon poos yu def dara. yu ànd ak wér dafa baax. ay poos yu def dara ànd ak wér. Mm-hmm. yamul ak dara booy. waaye loo mën a yor nag te wéroo nag moom. Ah, moom wér moo tax wér rek a a ñaan. waaw. wér ak jàmm ak jàmm mooy jàmm rek soo wér rek am nga jàmm. waaye soo wérul amoo jàmm. waaw kon nag yàlla na yàlla may jàmm man ak jiileeg ñun waa bureau ñi ñëpp. Mm-hmm. Kaakoog Adama Basak mm-hmm. Ousseyn ak ñëpp. ak nag ñi yéen ñi ñuy seetaan. mu leen ñaan yàlla yàlla may leen jàmm. waaw yàlla may leen jàmm may ñu ko ñëpp. jërëjëf père. parce que yéen nag duggaat ci mbir mi. Hmm. loolu maa ngi lay déglu. mais père Fallou namm naa waaw mu lay laaj waaw a waaw war nga fa dem bu ñu paree nii kay war nga ko ndax Pierre Fallou moom mooy saa yoo wooyee daan coupé ma wala moom loolu jikkoom la nit ku baax la waaw nit ku baax la waaw ak jabar ji Awa Diop maam hmm, Awa Awa Guèye Awa Guèye Diop waaw ku man ceeb la nag sama yaay la mais xamante gu ñu xam fekk loo ko fa dëgg la man ceeb la nag waaye nag Fallou tax may wax mu man ceeb waaye du man ah. waaw <laughs> <laughs> a ah, ceeb bi ñu ma woo naan ma père Birame daa bëgg ceeb. ah daa mel ni ceeb bu xonk nga gën a bëgg surtout ceeb bi di jënd. dégg nga waay jiili bu ma dugal. jël bu mag bi ah. buy <laughs> xam nga jiili mu mooy dugal yaa mooy dugal. <laughs> Fallou Diop ko bëgg nag Fallou. Ah, yii moom kooku moom moo koy commandé. waaw. waaw père tey ñu ñëw ci ci ci télé bi. waaw indi komba boo xamante ni. dëgg dëgg làmb la. mooy di traditionnel. doon bëri simple boo xamante ni. xarañta dafay feeñ. njàmbaar dafay feeñ garmi dafay feeñ. waaye technique surtout dañ ko fiy gis. mu ndox ci diggante rëg-rëg ak ordinateur. combat bi moom tey dama la ko indi. ngir bëgg nga xool ko bu baax di ko hmm. tikkal mu combat bi parce que gis nañ ci technique yoo xamante hmm. ak jël hmm. bu. rëy boo xamante ni macha hmm. allah dëgg la hmm. waa jël combat bu neex la parce que euh, ordinateur man miinu ma ko moo nekk suñu càmmoñ nii. Euh, rëg-rëg moom it miinu ma ko lool quoi mais nag xam naa fa mu bokk. parce que moom papa kan bu caaro yi papaam njàngaan kan xam naa ko. parce bëri doon nañu fii ci Bamar Diop. mais nag moom yàggul ci làmb. yaa nga après papa kan mu bokkal bàyyi tamit. Euh, ak Omar kan ma ñu ko tuddee. sama morom la Omar Kane yaa jot sow ko jur. dégg nga ak ku ñuy wax Seynabou Kane ak Pape Kane ñoom ñett ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. Omar Kane nag lañ ko tuddee Omar Kane ak papa ma bokk benn baay bu leen jur. baay Modou Kane leen jur. Hmm. baay Modou Kane ma bëri woon ak Falang ca Pout. bëri waat ak moom Dakar koo xam nga ne seen maam champion la. doomu mbër pire la. laay la la bëgguma kan ci maam ko. na ko waaw dégg moom dama ko dégg. Hmm. dégg naa Pape Ndiaye Ndiaté. mi daan bëri kooku classe ñoom béygee ak yooyu kooku dégg naa moo jur yaayam loolu moom dama ko dégg waaye lii ma la wax nag maa ko xam dama ko xam mu leer ma nañ mm-hmm. moo tax ba njëkkee daje keroog nee naa ko booy bi ma nuyoo rek laa ko ne ah yooyu ay kan mooy Reug Reug ma expliqué ma ne maa ngi tudd Omar Kan moo feeñ ci gis naa loolu nag moo mm-hmm. waaye nag gis naa ne làmb am na ci tuuti nag euh, lu ko xaw a gàllankoor mooy feebar yi téye nga xam làmb ci freiné fi waaw fi fi moom génnee mm-hmm. fi la làmb commencé sooxe waaye kii bu fekkoon ne làmb ngi dox nii gars yi ubbil ko bu nangoo bëri moom di nga gis lu nekk. gis nga ni mu def euh, kële ni gis nga ponk ni ku xam nga ni mu def euh, Elton. ak Gris 2 def Elton nga xam ne bu ñu ko bilee bunt bi rek mu ñëw. def ko def ko tamit. waa ji dama kii kay dama bu ñu ko bilee bi rek mu ñëw. Hmm. ñëw na ba pare sax. Hmm. yàlla na yàlla def ma luy sens ni mu ci bëgg yàlla defal ko. Hmm. ordinateur tamit bon pour dégg naa ko ci mbapat yi. mais nag taxul ma miin ko ko mais nag bëri na bëri bu rëy fii da nga ñu dem. ayca mhm. kon ñu waaw. fii nag ñu ngi léewtoo. Mhm. waaw xam nga ñaari pied droit xam nga rëg-rëg pied droit la teg. waaw. voilà. voilà baax na. waaw rëg-rëg xam nga ñu dem. waaw. et rëg-rëg gis naa ci moom benn affaire boo xam ne bii nag xaw ma ban moo ciy dëgg ci moom mais léeg-léeg ma gis mu téye droite. terminer gauche. wala mu téye gauche terminer à lool hmm. loolu nag ñaare dafa mel ni ku mën ñaari tànk waaye nag wóoruma. Hmm. waaw waaw waaw ñaari tànk nag pour nga bëree ko ci bëree lu ma ne amul mais jafe na. Hmm. waaw loolu moom lu jafe-jafe ci mbër la moom mu ngi mel ni football bu footballeur bu football ñaari tànk yëpp. di dóore gauche di dóore droite loolu lu jafe ci football la du ñëpp ko mën. moo tax gis nga bon kii tamit pied la ko gauche la teg mooy ordinateur ñu dem waaw comme foofu bu dee ci bëre dóor day dem bu dee ci bëre dóor bu dee ci bëre simple tam daf ciy am. Mm-hmm. waaw ñu ngi léewtoo mm-hmm. waaw mm-hmm. damante baaraam jàppante parce que ñoom des fois dañuy xamante ci làmb simple yi parce que li ñuy dajee ci tournoi dafa bari. li ñuy dajee ci tournoi dafa bari. voilà gis nga xool teel teel teel teel teel teel teel teel. ay barke rasulaay oh de lool ah, waaw waaw. gis nga léegi xoolal. gis nga téye bi delloo delloo dellatu fi mu téye loxo bi waaw xam nga léegi lii lii gis nga téye lii nga lii mbër waru koy nangu mm-hmm. mbër mm-hmm. gis nga euh, ordinateur bi rek rek warul nangu mu téye loxom bi lii bi mu ko téye rek dafa doon bañ loxo boobu moo da koo téye ko téye daal ñëw mm-hmm. loolu la gis nga yaa ngi indi nag ah. loolu nag loolu mbër mu ne da ko war a bañ bu bu téye di am yow sa bopp téyel waaye bul nangu ko la téye loolu xam-xam la. téye di am. téyel rek waaye bu nangu ko la téye. comme ordinateur def xam-xam la. xam daa waaw ordinateur def moo téye. xam nga téye boobu moo koy may mu appel ko gauche jaar droite fekk fii la bëgg a jaar. léegi kii nag la moom rëg-rëg bii nag moo warta nangu lii nag. Mm-hmm. la xam naa bu ma dee déglu dee na père bi xam naa li mu wax dëgg la parce que mbër saa yu ko téye soo ko téye rek su la xësee téye ba nga dëgg rek moo lay manipuler ni ko neexee. kon bul nangu boo ma téye dama lay téye. boo ma téye rek ma téye la waaye yow tam nga téye ma dégg te téyewu ma la loolu danger la ci mbër danger la ci ki téyewul ki la téye toujours moo pas avantage ñu dem gis nga lool parce que moom gis nga waaw léegi téye la fi app gis nga appel boobu yëpp mu doon loxo bële appel ba mu ko doon wax ca loxo bi yëpp du woon dëgg ci moom bàyyi na loxo bi daw bëtt ko hmm. léegi nag gis nga rëg-rëg ci boppam bu fekkoon ne waa ji moom téye na benn loxo bi rek benn loxo mënul ko dara parce que boo téye benn loxo bëtt ba mu téye damay téye sa loxo mm. soo bëttee benn loxo ba loxo bi bu libre looy liggéey loxo bi foog mu libre nga mën a liggéey mm. mais bu loxo bi fekkee di nga maa téye ma téye loxo bi du libre bu libre doo am dara ñu dem waaw gis nga gis nga fi mu jaar gis nga flan bi ni mu jaar ci kii heureusement kii itam calculé ne song bi xam na ne mu ngi ñëw ñu dem waaw voilà bi mu ne coppee tànk bi teel teel teel dellu ma tuuti rek fii wala bi mu ne coppee tànk bi kii bëri bëri ndaanaan la bëri bëri bëri ko tànk nii la. xam nga waxoon naa la ci benn émission bu ma fi defoon bu Tapha Tine bëri ak euh, Ama Baldé ba mu ne coppee tànk ba lu ma la waxoon. da ko war a da ko war a lem waru koo tàllal. yaa ngi rappelé wu loolu. Mm-hmm. leçon baa nii nag tey. gis nga tey gis nga bu tàlloon tànk bi. Mm-hmm. moom yi day ñàkk. waaye gis nga ni mu ko lemee da koy daal lonk ca ginnaaw. daal daal koy dévier nag pour jëm ko wër ah yar gis nga lii mooy bëri nag gis nga mbëru mbërum tànk nag boo ne coppee tànk bi da koy lem saa yoo ko lemee bu fël de bopp bi gis nga bopp bi génn na fële mu lonk tànk ba ginnaaw nag daal koy dé téy ci ngembal nag pour dévier ko léegi fii nag xam nga li fii eh, ordinateur bu doon boobu du ma ne du ndaanaan quoi parce que boo nee du ndaanaan da nga koy xas xam nga du ma taxaw naa leen doo ndaanaan waaye fii bu tey xam nga bu déggoon daaj xam nga lu bi waa ji amee ngembam fii rek te te loxoom lo xam nga loxo nga génn na bi mu bàyyi rek day bàyyi tànk bi rek takk ndigli gis nga loxo bi lu bëri bëri takk ndigg li ceinture ko galgal ak xaatar bi amoon amoon neex la de fii day bàyyi tànk bi parce que xal tànk bi fi mu ko lokk téye ngembali mënatu ko fee daal xam nga lan lay def mm. yalax tànk bi di takk ndigg loxo bii lay bàyyi rek alxubali ñëw maanaam gauche bii mm. lay boole ta droit ba takk takk ndigg li takkee rek nag foofu nag ah lu ko xam-xam mën naa galgal xaatar mën naa takk naax xam nga naax boo xam ne ñaari loxo mm. sa ndiggam day daal di jekku rek kii bu amul doole lool war a pexe du ci génn. ñu dem voilà gis nga gis nga tànk ba fa mu ne. gis nga tànk dara du dem du daan. gis nga xool voilà gis nga ba tey. gis waaw doo tànk parce que tànk dafa yàgg dafa waroon bàyyi tànk bi que fi mu téye ci ngembali ci ginnaaw téye ko tànk ba long la ñuy lag-lag yi da koy sonal te du daan da ko naan teg day takk day taalax tànk bi takk ndigg li parce que loxo yaa ngi ci biir ñu dem. gis nga voilà gis nga bi mu njattee rasu. Hmm. xoolal fi rëg-rëg tam bëri bi jeex na bëri bi wala xam nga xam nga sa waay sa gën sa gën ba tënk léegi moom nii mu taxawee moo baaxul moom kii ah, ah, ordinateur xoola ñaar tànk yi làng ni baaxul day jiital fi ne tey dafa waroon jiital gauche bi wala boog bu fekkee gos bi la mën a bëree mu ne ci kanam bu fekkee droite bi la mën a bëree nga xam ne mooy bëri kaayam mu indi ko ci kanam waaye bu taxawee ñaar nu nii daal di rasu ñu wér ko di gis nga bu sëggee nii sëgg bi day yàgg ci moom day téye ndigam ba pare encore du am équilibre d'accord d'accord nga. ñu dem. voilà gis nga rasu bi. Hmm, da waaw bu day rasu. gis nga ba mu siggee. ba gis nga ba mu mu siggee. waaw parce que. Euh, ordinateur téye na njàmbur si ginnaaw daal ne ko si feet jéem a ànd ak moom dem. Hmm. li ko xamul taw li amul doole. wala ñaar tànk yi làng yi. moo tax sikki bi du ci am doole parce que bu rasoo la. waaw te naa ko ba tay waaw ñu dem. voilà yi nga jàpp ne waaw ah. gis nga tuur bi da koo taxal ba wéeru ci kawam mm. mu daal koy door tuur tuur bi nag mënoon naa ñàkk waaw tuur bi mënoon naa ñàkk wala voilà kii bi kii bi noonu te kii bi euh, ordinateur mm. noonu ñu ko tuuree mënoon naa ñàkk parce que ba mu ne yàlla tànk bi dafa takk ndigali rek mm. bu takkoon ndigali rek lii mën naa ba waaw jàllar waaw léegi jël bu rëy te pourtant nag xoolal xoolal rasul voilà xoolal gis nga fii rëg-rëg jeexaloon na bëri bi arrière tuuti sukk bi bi mu bëttee arrière tuuti voilà gis nga fii nag rëg xoolal très bien ça téyel ma fii xoolal fii rek rëg jeexaloon na bëri bi xam nga gis nga loxom bii day sulli wax wi rek dóor ko dënn mu ne deet da koy teq rek yëg ko mu ne deet kooku nag foo nga doon bëri teqkat bu mel ni man man dama daan teq moo tax yu bari koy gis am na teqkat yoo xam ne yi lay lay la gis nga wax ko loxom bii lay bàyyi soli sewi bi ci suuf rek dóor ko dënn ñii seetaan te mën a bëri kay xam nañ li ma wax. waaw de gis nga fi ne moom ni ma ko njëttee nii rasu nii loxoom bii fii ne bëri bi jeex na sulli wax que ñaar tànk yi dañoo làng amul équilibre mm. mais bu fekkee tànk bi nee na ci ginnaaw benn ko mën a yóbbu parce que day am équilibre mais ñaar tànk yi bu ñu fii mm. rëg naa ne bu ma rek la doon def daan det bëri bi jeex ñu dem gis nga waaye booba Reug Reug mu koy ngoobu rek di téye kii euh, voilà gis nga gis nga bi mu nee jóg nii tëb d'accord taf gis nga taf bi nii mm-hmm. la ilaha illallah ba tey taxawaay bi baaxul ba tey taxawaayee ko daan waaw ba tey taxawaay daan bi muy def action bi mm-hmm. xam nga maa ngi lay wax suñu action émission ba démb bi xam nga bañ lañ doon def am na bu ñu doon def may la mm-hmm. action bala nga koo mën def mu sax day fekk nga taxaw dëgg action boo koy def te taxawuloo da daanu moo tax da ngay assurer sa taxawaay ba sa taxaw assurer nga door def action bi day réussir mais gis action bi mu waroon def ni ak ni mu ŋoo boobu dëgër nii tey ji bu fekkee taxawaay bi baaxoon na doon na dem mën na cee génn mais nag taxawaay bi baaxul mu def action moo tax waaj dafa bàyyi ba mu kott ko di wéer mu tóor ko ànd ak moom daanaan dëgg la du bëreel bëri bu rëy la ñu bëri ñoom ñaar ñi ñu dem gis nga ko gis nga voilà lay lay tuur ko moo tax gis nga ñaari champion daje nañ mais nag démérité wula bëri na bëri bu rëy mm-hmm. xale la mu ngi ci carrière bu góorgóorloo gën a yokk carrière man naa sori ci làmba moom moom ordinateur mi mm-hmm. mais Reug Reug moom nee naa la ëgsi na mm-hmm. daa dajeeg làmb am am tof rek làmb am tof rek mu dajeeg plateau waaye kii dama ni ma ko gisee ak bëri bi ne ci moom ak ci moom mm-hmm. ak bëri bi arène bi ma gis mu di ko def ak bëri bi ma lu làmb di làmb doxoon tey làmb ko bàyyi ubbi nga xam ne taxaw gaa yi ubbil ko buntu bi nangoo bëreeg moom waaw te it maa ngi lay wax la ne. Hmm. képp ku ne ku ne xeeb naa ko da ngaa doy ba da nga koo moytu rek. waaw waaye li mbër di wala li olof di wax daan la daan. ak na ci moom. dëgg la léegi li ma gis mooy hmm. dafa nekk mbër moo xamante ne dafa mën hmm. macha allah loolu xam nga ko. daanaan mais léegi. arène bi tamit bu duggee dafay wane boppam. moom mbëru mbapat la wala mbëru arène. lépp la boole dafa boole bëri arène bëri mbapat. mbapat bi arène bi kay mbapat bi kay gis na ni muy def lu ñu teg mu jël. Mhm. te ay champion la xam nga ne ku daan ordinateur ak ak di daan ñoom franc di daan yooyu yëpp. Mhm. ak di daan ko ñëw ni mooy ay kii nu mu seeti Mamadi Ndiaye ak gars yi yëpp ku leen di mën a daan. Mhm. ak gars yi ak ñoom caaka fay ñu yëpp di leen daan yi tam xam nga ne ko mënu loolu mënoo tegale di yor ay ñaata drapeau digg naa man kay maa toog benn champion séeréer bu ñuy wax euh, Malick Nguéniane déedéet déedéet euh, kii euh, mbaru séeréer waaye mu ngi dëkk. moom ñoom dama fàtte tur bi waaye. dina ñëw dina ñëw gis nga kooku. nee ma li mu def ci islam boobu séeréer amul benn mbëru séeréer bu ko mas a def te kooku mbëru séeréer mu mag la. ma nga xam ne kooku mhm. te ñi mu daan yow champion la de. dama ne ni mu def rakku Gris Bordeaux bi mhm. def ko la Elton mii. Mhm. nga xam ne rek mpokkal yi bu ñu ko bilee bunt mu ngi seen kaw. waa ji dama ne li mu def mooy yoon nag comme kaa nangu ñoo bëri moom day ubbi bunt bi bu farak kenn amul ku muy faral ku muy làqool na ñëw bëri ñëpp da ngaa toll ci bëri bokk leen ndey bokk leen bàyyi du ngeen ni ennemi du ngeen ni noon mm-hmm. benn tàkkusaan leen boole mu jeex ku nekk dem làmb day jeex loolu rek la kon tey jii ku ma bokkul ki damay bëri yow mm-hmm. fi mu ne dama ne su doon taw dama ko daan ku kuñ la jox jëla bëri bul xeeb kenn kuñ la jox jëla bëri parce que mbër gi du la fi xaar temps bi du la fi xaar ndaw gi du la fi xaar ndaw gi mag mm-hmm. moo gis gone la woon ñun ñi màggat tey fii taxaw di wax nii ay la ñu woon tey jii est-ce que mënatu ko. déedéet waaw ah, nga kon kay jeex jërëjëf Père Birahim ah. ma lay ah. bu baax a kontaan bu baax a ci def ak moom du ma doyal ci Père Birahim ma lay jaajëfalaat bu waaw maa ngi lay kontaan ci yow tamit trop parce que question yi neex na. Mhm. ah ni nga koy posé tamit wax dëgg yàlla maa maa ngi ci wax sama xalaat. Mhm. li may wax toujours nag ne xalaat du gàtt xalaat bokk na ci loo wax ne looloo am. lu ma wax rek noonu la déedéet da ngay wax ñii gisee ni ñeneen giseen man ngaa wax nii laa gisee kii ne gisee wu ma noonu loolu mooy indi waxtaan mm-hmm. loolu werante euh, moo bon mm-hmm. waaye nga joxe sa xalaat ma joxe sama xalaat yàqul dara xalaat bi nag mën nañ ci dëppoo mën nañ ci wañ a dëppoo mm-hmm. waaw mën nañ ci wañ a dëppoo ci xalaat waaw loolu àddina noonu la ko kon nag yàlla na yàlla def jàmm ak sutura yàlla nañu yàlla defal mujj gu rafet gudd fan gu ànd ak wér ak wérle euh, di kontaan ci ñëpp nag di kontaan ci sit bi maa ngi kontaan nag ci ñaan yàlla sama gaa yi suñu soppe yëpp nag ñëw leen ci wasaare. Mm. wasaare fii la affaire bi ne wasaare. Mm. parce que am na leen lu ñu war a jàngale loo xam ne mu ngi ci kanam. bu soobee yàlla yent bi bari. Mm. tey jii tey jii lii am na foo xam ne fu ñu toll nii bu doon tappi. dañ koy daal di wane ne fii lii la waroon def. te loolu bu ko xale yi jàngee dañ leen yokk lu bari. Euh, Mbaye Diaw numéro 2. Mbaye Diaw waaw waaw Mbaye Diaw waaw doomu Souleymane Diaw doomu Souleymane Diaw waaw dëgg la seeti naa ko yóbbante ko eh, jox ko say yóbbante waaw waaw père Birahim nuyu na la mm, dëgg la mu wax ma ci yow kàddu yu rafet dëgg la dëgg la keroog bi ngeen dajewee eh, stade stade amitié stade amitié waaw dëgg la waaw muy renouveler licence dëgg la dëgg la teranga bi nga ko defal dëgg la dëgg la ci mën a bëree kooku noo ko gisee waaw gis naa ko gis naa cong mu rafet mu am te dinaa la bëree ñaara ko yor hmm. koo dikk ñu ni mën naa bëri père Birahim wax ne su mënta di ñaan mënta rasu rek bëreem des na ay prise yeneen yëpp ay naxaate la rek fexe ba orienté nit ki nax ko ba prise ko wala boot ko wala caxal ba ko wala ko def yooyu yëpp ay ay jàng la rek mm. ay mënin la yoo xam da nga ciy dal rek waaye riñaan mu fattata rek comme ni mu rañaane keroog ci Ibrahima Diop fee mm. song mm. ah, ne dama de gisoo sama même sama booy mbër yi booy booy euh, sa xam-xam yi dañu ne oh, kii def na lu père bëgg waay ma ne ko keroog bu ñu day woon di nga lekk sama ñaar téeméer maa la wax li keroog bu ñu dawee moo ko jotoon hmm. daa def dama yëkk lu ma yëkk dama koy may hmm. parce que action bu rafet la def bëri song koy jeexal gis nga bëri songkat hmm. su mu daan ko mën mbëru songkat de dencal li la wax leçon laa la jox de dina mas a toogi nga ne Père Birahim daana wax nangam man maa la wax dama ne la mbërum songkat toujours mu daan ko mën ay mbër yu bari dem nga làmb ja seetaani seen combat cong mu rafete lañ ci génne woo waaj ci xew mu dafay xeer mu daw pakate ko dóor suuf dem yoonam waaw ah, te kooku man fop waaw du am moo tax bëri ñaar rek ko yor. Mm. dañu ñaan ak rasu rek. du ñaan ak rasu ma lay jaajëfal bu baax jërëjëf Père kon ma lay jaajëfal. waaw bu baax a mm-hmm. baax di gërëm bu baax waa Thior production. waaw nga xamante ne fa laa jëlee image bi. ah image bi waaw waaw waaw ñoom la. di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax. ci seen liggéey bu rafet. waaw euh, di nuyuwaat bu baax waa association Sage. les Sages de la du Sénégal. fa laa bëgg a bokk Moussa waaw Moussa Gueye Moussa Gueye di président bi boole ci. te it mate ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant mu mate ko loolu nag lépp lu ñu soxla ba président ministre bi jël na ko. Mm-hmm. boole ko ci group bi nga xam ne seen ñooy siégé par lundi. nee naa ko nag yow boo fa nekkee ñun amatuñ fa njariñ. ñun suñu toogaay amatu fa njariñ parce que dina fa nekkal mbër. Mm-hmm. dafay nekkal mbër moom. Mm-hmm. parce que bu fa nekkul mbër ñun ñooy dal ci kawam te loolu ko sax. avantage la fay nekkee. waaw dina yar mbër yi ñoom it ñu jéem a nekk ci njub nekk ci dëgg. parce que signé contrat ba pay def la neex loolu dafay deñ ku signé contrat la contrat wax danga koy def parce que bi nga jo bëggee jot xaalis da ngaa signé loolu waaw d' accord naa ci nii mm-hmm. ñu dax la ko kon kay yow te boo ñëwee war ngaa appliqué loolu. kon ku la far ku la far mbër ku ko far ci lu dëgg di dimbali woo ko. Mm-hmm. dama ne ñii ngay gërëm tamit. Mm-hmm. ñu bokk teen foog ñu la xasoo goj ñoom soxla nañ leen tey suba dañuy soxla ñun. ni ñu leen soxlaa suba loolu la ñuy soxlaa kon nag jàmm rek war am suñu biir. am déet. yàlla yàlla def jàmm. amiin jërëjëf.